mu topp ci ay tànku prédécesseur am euh, Ablaye Wade on se rappelle euh, président euh, ex président de la République Macky Sall mais bu Bassirou Diomaye Faye bi dafa am un cachet particulier parce que dafa am débat bu fi jiitu woon Euh, ci relation entre certains euh, avec les avec avec les confréries yi gis nañ sax ci campagne bi ñu ne ñu leen doon attaqué naan euh, vous avez fait le tour du pays euh, damu leen sukk ci kanamu benn ci kanamu benn xalif donc nit ñi doon surveiller un peu euh, cette relation là cette cette approche ba Bassirou Diomaye Faye dem fa démb tegu ci tànku ay prédécesseur am euh, ci geste bi mu def ak même ci engagement ak euh, wane yéene bi mu wane yéene euh, continuer à apporter des solutions au problème des des des de de des cités religieuses mu mel ni da ngeen réussir le mu mel ni un test réussi. waaw mais Maïmouna yow xam nga Basirou yow yow xam nga ni Basirou. lii mu lii muy def nii lu naturel la ci moom yow basiru bi nga xam mooy basiru bi bi joxe cër basiru bu bari kersa basiru boobu bu la xoolee du si benn yoon du siggiwaat xool la maanaam il faut sénégalais yi xam ne Bassirou Diomaye Faye li muy def mooy li mooy mooy mooy nii la mel yar ak ak ak ak ak bari kersa ak joxe cër parce que Sénégal am nañ chance bu rëy rëy chance bu rëy parce que ñu ngi soog a wax mënuma wax ni ñu ngi soog a am jaar na bari na ay leaders yu fi jaar mais Bassirou boo ko nee jàkk li ngay njëkk a jàng ci moom da xam ni kii ab sénégalais la bu raxul dara sénégalais bu raxul dara sénégalais boo xam ni zéro complexe lay doxe reconnaître ni moom fier d'être séeréer loolu c'est très important te loolu dama jàpp ni loolu lañ doon wër ci réew mi. yeneen président yi aussi ay sénégalais yoo xamul dara la ñu. waaw ma ki ma xam ko. <laughs> waaye ñun tamit dañoo fekkee. Macky Sall sénégalais bu raxul dara la. Euh, ma ne raxul Mauritanie raxul lenn. sénégalais bu raxul dara la li ma bëgg a wax mooy. Ah. Basirou. lii mu def nii am na yeneen i surprise yu nekk ci kanam parce que lii mooy Basiru du leneen maanaam ñi ko xamul woon nag ak ñi nga xam dañoo takkoon ni rajo di diaboliser Basiru mën na leen a bett mais ñun ñi ko fréquenté xam nañ ni Basiru Diomaye fay bi ñu gis mu ñëw sukk ci kanamu imaamu ratib bu grande mosquée bi di ko jàpp di ko yëkkati pour may ko doole mu jóg boobu mooy la boobu mooy vrai Basiru Basiru bi ñu gis mu dem ci kanamu sëñ Muntaxa sukk ci kanamam fóon loxoom boobu mooy Basiru Basiru bi ñu gis mu dem ci kanamu sëriñ kër Si Mansour di di di jóg mel ni kuy raam mu koy jox diwaanu Seydi Hadji Malick président boobu la yàlla xéewale tey parce que ñun loolu moo taxoon ñu ciy sonn maanaam kon tey dafa siggil képp koo xam ne nii danga doon wan da doon wax ni Basirou attan na réew mi yow xam nga ni Basirou depuis mu yor ba tey heure bu génnee rek bu jëfee ñu ni fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin loolu dañuy jàng alxuraan ñoo ko xam mais loolu la ñuy xaar ci njiit parce que nit ñi boo leen bëggee jiite il faut nga gën leen a yaru te li may wax nii dafa baax nit ñi xam ko Cheikh Seydil Hadji malik si radiyallahu anhu dafa am bis bi feebaru pest xewee ci réew mi tubaab bi ñëw ci moom ni ko ah man de dañ ma fee yabal pour mu gouverner waa Ndar te waa Ndar ñoom nee nañ du ñu ñax te feebaru peste bi mu ngi tasaaroo histoire boobu dégg nga ko te waa Ndar bu ñu ñàkkuwul man gouverneur bi damay ñëw rey ñëpp ñu jeex mu ne ko yow dañ la fay yabal pour nga pour nga gouverner waa Ndar wala dañ la fa yebal pour nga rey leen mu ne dañ ma fee yebal pour ma gouverner leen mais ñoom dañoo réew ci waxin mu ne ko bu ñu reewee yow nga gën leen a yaru mu ne ko dañoo xamul mu ne ko bu ñu xamul nga xamal leen nit ñi boo leen bëggee jiit boo leen bëggee jiite dañ leen di gën a yaru gën leen a xam malheureusement nag Sénégal depuis indépendance ba tey ñi ñuy jiital peuple bi dañ leen a ëpp lépp loolu bokkoon na ci li gàllankoor réew mi ba mënuñu woon woonu bouger mais Basiru bii ñu jiital jàpp naa ni boo ko ne jàkk rek di nga xam ni kii sénégalais bu raxul dara. alors dafa témoignage yëpp may mun a bi dàq ci témoignage yi mooy bi say waajur def ci yow te damay wax ni vidéo boobu waajuram def ci moom il faut ñu dem déglu ko dafa wax ci moom ay témoignage nee na nit ku am ay valeur la. nit ku bari kersa la nit ku am yar la kon basiiru boobu rek ngeen di gis. xam nga dafa basiiru boobu nag xoola mooy bi mooy mooy moo moo moo bari maam junniy basiiru ñoo nekk biir. biir biir Pastef junniy basiiru yoo xam ne même comportement yi même attitude yi. xam nga euh, demam bi Touba. Hmm. Euh, dafa dem bariwul gàngoor. c'est important. mu dem ak dans la sobriété et mu mu wane foofu la amee différence avec ses ses prédécesseurs mu wane genre dévotion ak genre yar boo xam ne euh, tey loolu moo ci moo moo ci neex waa Touba gis naa ay murit def euh, ay ay ay poste naan ñoom ku bëgg maam borom Touba ñoom bëgg bëgg nañu la alors est-ce que c'est le comportement du président de la République est-ce que dina dina annihiler une bonne part pour toutes euh, le débat relatif aux soupçons yu ñu am euh, naan mais nag am na dégg naa tey tamit ñu doon ay ay ay ay branches extrémistes de de de Pastef Euh, yu yu doon kaas nga fekk mu dem ci kilifa diine yi mais est-ce que hmm. loolu dina éteindre euh, si vous avez des branches extrémistes si vous avez des <laughs> extrémistes wi vous avez des extrémistes waaw allez-y loolu amul ne loolu <laughs> loolu débat ah boobu amul man Pastef dégguma fa kenn <laughs> ma ne vous avez des ma ne Pastef nag Pastef nag mais dinaa ci ñëw Pastef nag dafa dafa bëri dafa bëri démembrement waaw dafa bëri ay idéologie euh, am na ci ñoo xam ne jàpp nañu ne euh, warul woon dem foofu am na ci ñoo xam ne euh, jàpp nañu ne voilà warul woon nekk mais est-ce que débat bi pour en revenir à ça que man c'est un débat que je n'aime pas du tout mm-hmm. fii ku mu neex gëm lu la neex mm-hmm. mais nag boo nekkee président de la pour tout le monde mm-hmm. da nga amel kilifa diine yi ma te kenn mënul jiite réew mii di Sénégal te wanoo worma orma ci ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa. Ah. mais euh, pour en revenir à cette question là est-ce que dina éteindre une bon fois pour toutes ce sa ce débat euh, ci ay ñii ay salafis lañ ñii ay waha ay wahabit lañ. ñii gëmuñu kilifa diine yi ñii bu ñu jëlee réew mi euh, dinañu guerre ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ñoom ñooy suñu confrères yi. may mën a débat boobu amul place ci réew mi xam nga Sénégal réew mu ndaw la nii ci surface mais réew mu mag la ci taarix. Sénégal dañu ni bërit am indépendance ñu am président boo xam ne catholique la te majorité musulman ñoo ko fal loolu dafa jàngal àdduna bi yëpp maa ngi fàttaliku mel ni Serigne Moustapha Cissé ancien ambassadeur nee na bi mu demee Arabie Saoudite dokk na ci naar yi li ñu ko doon wax mooy yéen Sénégal naka ngeen di nekkee réew moo xam ni quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman lañu ba bari jël katolik jiital ko mun leen parce que loolu mooy particularité bi Sénégal am débat boobu dañ ko régler bu yàgg a yàgg réew mi duñ ko jox nit parce que yow katolik nga wala yow jullit nga wala tijaan nga wala murit nga wala salafiste nga réew mi dañ la koy jox est-ce que yow jafe-jafe réew mi mën nga ko ci mën nga ko ciy génne wala mënoo ko cee génne Sénégal kenn ku ne libre nga pour bokk fu la neex bi te loolu li la koy wan man ci biir Pastef gis naa fa ñoo xam ni tey maanaam ñoom jàppuñu tarixa te bi ñu nekkee ci biir kaso bi ñi ñi nga xam ne dañoo jàpp tarixa ñi jàppul tarixa ñoo leen di yóbbul añ wala ñoo leen di yóbbul reer ci biir kaso bi kon ñun débat boobu romb nañ ko bu yàgg a yàgg ñun modab gi ma bokk exemple laa ci jël parce que moo ma gën a jege ci biir modab tijaan yaa ngi ci murit yaa ngi ci ñi ibaadu yaa ngi ci hmm? ñi gëmul benn association islamique a ngi ci mais ñun ñëpp benn objectif lañu am mooy le Sénégal may mu ne ñun suñu réew dañu dafa régler problème bi ci sunuy sunuy baat yoo xam dañ ci war a bàyyi xel un une fois yaa ngi dégg réew mi te loolu sëñ Fallou moo ko réglé sëñ Fallou bi ñu ko nee affaire Senghor lu tax nga bàyyi fi Senghor lu tax nga bàyyi fi Lamine Gueye di ànd ak Senghor mu ne falloo wuñ ma imaam njiitu réew lañ may falloo moo tax débat yooyu ñu koy animé mooy ñi nga xam ne bëgguñu ñu wax ci essentiel xamuñu fi ne ci lan la ñuy wax may mun a nan la ñuy fexe ba jeunesse bi am liggéey. da ngeen nekkee opposition kay yéen a gënoon tenir débat. débat débat yu ñu ko débat yu bari. yu bari amuñu argument débat ma ne. amuñu argument. ma ne mais biir <laughs> waa waa affaire waa affaire doon nañ doon tenir débat boobu waaye am na débat boo di compte yoo xam ne moom euh, ci yéen la ëppee woon nañu waxante dëgg dañuy waxtaan rek foofu barki démb njaay Pastef ngay dem Pastef ngay dem fekk ah. fa Pastef ngay dem fekk fa façon sénégalais bu nekk mu yor fa ay ndomba tànk yaa ngi dégg ñun modaab dañ koy lancé suñu invité d'honneur moo doon Toussaint Manga moom lañ invité woon comme invité d'honneur débat yooyu Sénégal dépassé nañ ko ay affaire salafiste dinañ bàyyi ñi stigmatiser ah ay affaire salafiste yooyu nañ ko teg ci suuf comme neex nga nekk salafiste est que réew mi dañoo wax ci institution bi ni ci constitution réew mi ni kenn du fi nekk salafiste réew mi comme neex nga nekk loola neex nekkal. la liberté la liberté de culte elle est consacrée au Sénégal athée loolu intéressé wuñu xam nga lu ñu intéressé les débats essentiels réew mi kan moo ko mën a génn ci guute gi mu nekk parce que loolu la comprendre moo tax debaa yooyu nga xam ne nii c'est des détails mosuñu cee wax yaa ngi dégg man damaa ruus a toog sax di wax nit ki yow ban tarixa nga bokk te loolu sama sëriñ Cheikh Hadj Abdou Aziz da baax am na lu mu ci jàngale woon nee na nit bu ngeen génnee ci jàkka ngeen daje nee na nga jox ko loxo mu jox la loxo mu laaj la ban tarixa nga bokk roccil sa loxo xam ne seytaane tàbbi na yooyu ñu ko doon wax mooy ñi amuloon argument ñun dañu bëgg ñu yéegal niveau bi tuuti may mun a ñu wax ci économie non ñi amul wax ci euh, agriculture. wax mën mën nga wax loolu. mooy les vrais mais mais xam nga débat bu fu mu jógee. Ah. li tax après gars yi fekk si leen. Hmm. Euh, di yëkkati yenn soupçons yi yenn tuuma yi di ko teg ci seen kaw. Hmm. c'est parce que aussi dafa am comme je l'ai dit des branches extrémistes chez vous yu doon attaquer notre socle confrérique. non non loolu amul. Euh, dinaa la ci leeral si ñu doon attaqué. Euh, suñu suñu kilifa diine yi après. Hmm. Euh, ñoom ñu répliquer leen ñu répliquer en disant que. ñii ce sont des ennemis de notre socle confrérique. parce que ci ci démembrement bi la ñu la ñu la ñu bokk foofu la débat bi sokkee. foofu aussi Maimouna Pastef ñi ko ñi ko xam ne tey ñoo war président Ousmane Sonko ci famille yi gën a mag ci famille Serigne ci Sénégal fa lañ juddoo famille yi gën a mag. am na loo xam ne toog di tale di ko wax dafa soof am na ñoo xam boo xamee seeni maam xam fañ jóge yàgg naa di ko ci àddiyee lañ leen ngénte mais réew mi dafa dépassé niveau boobu réew mi ñu ngi wax ci développement ak économie gis nga débat boobu musul poser problème benn waay bu nekk Europe takku yor internetam bu doy xamul Pastef Pastef xamul muy attaqué ay confréries kooku lu ko Pastef maanaam benn waaye boo xam ne nii dafa nekk Europe yor connexion bu doy di attaqué ay ibaadu lu ko Pastef mënal kooku ku ko bëgg a réglé loo mooy yow yaa nar a indi problème ci réew mi dama lay fàttali benn déclaration bu président Ousmane ko defoon ci Touba. gis nga déclaration boobu rek la Bassirou Diomaye dëggal ci visitam bi parce que dafa wax ni képp ku ngeen dégg muy attaqué kilifa diine yi moom moo boole boppam ci man waaye man boolewuma ko ci sama njaboot. te président Ousmane ñi ko gën a jàppale ci moment yi gën a difficile ma wax la ko ci moment yi gën a difficile c'est des religieux